furu dem bu leen seen sëriñ yi waxati loolu laaj leen leen furu dem moom gannaaw ruu reyuñ ko te eh, ñëpp d' accord nañ ne yonti bi ne ruu du dee kilifa yi yëpp d' nañ ci bi ñu roccee ruu fuñ ko dugal soo buggee lijjanti danga ngaa lijjanti gannaaw mënu laa xam fa ruu dem mënu laa xam fu ñoo teralee waa ji mënu laa xam fuñ ko dumaaya soo gisee ma ne buñ